dëkk nit ku véridique la yaa ngi dégg man nguur mënumaa man moom nguur man man man du ma ni bëgguma poste entre di faut mu leer hmm. parce que léeg-léeg nga toog foo xam ni yàpp nga ni sa teewaay fa moo gën nga bañ faa teew waaye loolu poste warul tere as gor continuer combat am combat que da nga fi waaye nit ki noonu tamit keneen mën na ko jiite ku bokkul ma daal ñoom ñooy tànn rek xoola ku leen neex. Hmm. ak kuñ jàpp ne doy na leen. doy na leen yaa ngi dégg essentiel mooy essentiel mooy nañu fexe ba am résultat résultat moo am solo Pa Ousmane. ci liñ leen dénk. ci liñ leen dénk. d'accord parti bi ci wàllam tamit day dox. moo waral yeneen xaar ngan gi semaine prochaine. Mm-hmm. Jean-Luc Mélenchon. bokk na ci ñàgg a appuyer njiital Pastef ci combat fi jot a am. ba ci mm-hmm. sax. jafe-jafe yi ñu jot a dund sànq ñu ngi ko tàmbalee ci euh, waxtaan wi mu war a ñëw Sénégal te lañ daan gis ay jamono mooy nii bu ñu amee njiitu réew ci visite yi muy def officiel bokk na ci kilifa gi daw ca France daje kilifa réew ma ba tey amagul en tout cas ci président Bassirou Diomaye Diakhar Faye yi muy génn ci Afrique la ci diggante bi ñuy gis waaw ah. ca France war a ñëw dajeeg njiital parti Pastef lu woon ndaje bu waaw xam nga dafa baax foofu ñu leeral ko tuuti parce que maa ngi ci dégg ay détails yu ñu ci commencé di mm. dugal xam nga ñu bañ a jaawale parti Pastef nga xam ne Ousmane Sonko mooy président bi ak le gouvernement bi nga xam ne Bassirou Diomaye mooy président bi mm. du benn Diomaye visite yi mu def yëpp ay visite yu officielle la def ko au nom de l'état du Sénégal boo xoolee def na Gambie ah, Mauritanie la njëkkee wala Gambie Gambie d'abord Gambien. Ah. Ah. Mauritanie Mauritanie Mauritanie mu nekk visite bu am solo parce que li ñu boole ak Mauritanie ku ne xam na ko. Mm. gaz ak pétrole la ñu am ay relation historiques yu yàgg loolu rafetlu ñëpp rafetlu nañ ko mu jóge fa dem Gambie ba léegi mu ngi ci proximité jóge fa dem Guinée. barki démb yaa ngi koy dégg Côte d'Ivoire. jàpp naa ni loolu mooy état parce que état xam mooy lan da ngay fexe ba sa ñi la wër nga am ak ñoom ay relations yu baax d'abord. maanaam say dëkkandoo. Hmm. nga am ñoom jàmm. am ñoom ay partenariat yu dëgër samp sa ci wàllu sécurité d'abord. Hmm. ak ci wàllu coopération loolu lañ tuddee diplomatie de proximité loolu commencé na ko mu nekk loo xam daf ko war a wéyal ci Afrique yépp parce que Afrique il faut ñu xam Afrique ñun suñu parti. dafa baax ñu tudd ñu fàttali nit ñi parti bi lan la woon. parti bi panafricanisme la doon xeex. yaa ngi dégg. parti Pastef. lii muy def nii rek moo moo mooy li war a am maa ngi jëloon fii note. gis nga patriote africain du Sénégal. lii moo doon départ ba li leen li doon jaay nit ñi maanaam da gis ni patrio panafricanisme bi nga xam ni Afrique daf ko yàgg euh, yàgg a yàgg yàgg jaay àdduna bi. Hmm. ñu mel ni ay Kwame Nkrumah. Hmm. yaa ngi dégg ñu mel ni ay Cheikh Anta Diop ah, ay Thomas Sankara ñooñu jaay ko àdduna bi tubaab yi def lu nekk pour yàq ko ñu dem ba sunu génération am benn leader bu ko yëkkati muy président Ousmane Sonko panafricain yi ne ci àdduna bi yëpp gis ci seen bopp kon jàpp naa ni lii ñuy def nii. Hmm. mooy li war a am. bala nga ni naam ne bay ci sa weewu tànk ah. tàmbali ci sa kër d'abord parce que réew yi ñu ak ñoom ñoo bokk taarix réew yi ñu nag ñoom ñoo bokk ay aada bokk ay diine colonisation moo ñu séparé ñun ñëpp ay panafricain lañ kon jàpp naa ni lii moom ku xam dem bi Afrique doo am lu dul kontaan ci te rafetlu ko kon ñu ngi koy encourager bu baax président de la République mu continuer yoon boobu yoon woowu tey normalement bu jógee Côte d'Ivoire war naa dem fu mel ni Ghana ak réew yi di wër yëpp Nigéria. dajeeg Nana ak Fado. oui oui parce que Afrique bu ñu ko bëggee tabax il faut ñu boole Afrique bu ñu naxante Afrique benn réew yi tasaaroo nii ku ne toog sa roq loolu du développement Union européenne am na Amérique ngi nii nekk benn réew le monde arabe ñu ngi jéem a xeex ligue arabe. donte liggéeyuñu ni ñu war a liggéey mais ñu ngi góorgóorlu. Mm. pourquoi ñun Afrique duñ jéem a liggéey ci euh, au lieu yam ci ay union africaine yi mu nekk ay déclaration mais mu nekk coopération boo xam ne nii coopération bilatérale lay nekk bu dëgër jàpp naa ni te loolu tey ki taxaw pour mën a incarner leader ci Afrique tey. Hmm. kenn rek la mooy le président Ousmane Sonko. parce que gis nga bi fi président wu Guinée bi ñëwee. nu mu tuddati sax Dumbuya da ngay gis da koy accolade nga xam ni kii daf ko def ak cœur ouvert yaa ngi dégg hmm. ñun loolu daf ñuy neex parce que man mii di wax yëpp man pan panafricain la <laughs> waaw man damay déglu ay ñoom ay Patrice Lumumba yaa ngi dégg <laughs> di déglu ay ñoom ay ay Thomas Sankara hmm. waaw boo daan déglu fii sama émission daan nga ma dégg ma wax proverbe boobu ce que les élites ne font pas pour le peuple le peuple le fera pour lui-même. yaa ngi dégg man ñoom dama laan den dégg daan dégg Thomas Sankara may wax Bouba Diola Sow Sali. <laughs> xam nga xam nga man. man panafricain la man. moo mm. tax man lii gis naa ci sama bopp. patriote africain du Sénégal nañu commencé Afrique d'abord c'est très important. mu des Kaawu Mola Molan nu waa ji tudd sax Mélenchon. Mélenchon bi waa ñëw. il faut ñu xam lan moo ñu boole ak moom. jamono bi ñu nekkee ci xat-xat ñëpp di ñu tam dëmm di ñu tuddee ay wahabiste salafiste lu ne wax nañ ñu ko. ay terroriste bokk na moom Mélenchon ci ñi daan jóg di taxaw biir Europe di occuper média yi di ñu dénonce di ñu di ñu jàppale. ak i député ak mais mais kooku da ngeen am ay relation yu par yu particulière parce que da ngeen a bokk combat combat bi ngeen bokk. mooy combat wu démocratie bi ngeen bokk mooy combat wu république am maa ay gëm-gëmam nag ci wàllu ay góor jigéen ak yooyu. Hmm. loolu ñun intéressé wuñu ah waaw parce que damay man damay damay anticiper débat bi damay bañ gaa yi ñëw ñëw foo xam ne nii du foofu la ñu war a ñëw Mélenchon ku ne xam na position yi ñu am ci affaire góor jigéen. loolu waral la bëgg a wax nii loolu ñun ak moom bokkuñu. ci position daloon na fi ak Charles waaw moom laa bëgg a wax. Mm-hmm. xam nga man moom man xam naa réew mi xam naa ni gars di xalaate maanaam li ma bëgg a wax mooy ñun suñ position ci góor jigéen dafa leer wax nañ ko jëf nañ ko moom nag position yi mu ci am loolu moom la engage engagé wuñu mm-hmm. ñun suñu relation ak moom mu ngi dépendre ci koo xam ni dafa jàpp ni Afrique dafa war a moom boppam Afrique dafa war a dépendre ci boppam Afrique dañ ko war a jox cër bi mu am ci àdduna bi te loolu dafa bokk ci ay discours loolu rek moo ñu booleeg moom maanaam nit ku ne da ngay xam li leen boole c'est important. Hmm. waaw loolu mooy loolu mooy àdduna bi ku ko xamul mooy yow mënoo yor état et puis nga fexe ba ku mën a ñëw li nga nekk bu mu la ci jëlee. te yi hmm. ñu fi nekk. Hmm. rafet naa njort nit ku xam Sonko tuuti nga fréquenté ko. da nga xam ne ay conviction ci yenn gë ci ci yenn affaires yi kenn mënu ko cee jëlee. ñëwam fii solo sànni waaw kon ñëw bi. jàngat boobu lañ ci war a njëkk a def ñaareelu jàngat bi mooy mooy ndam lu rëy la ci Pastef. Hmm. ndam lu rëy la ci Ousmane Sonko ñu convaincre Mélenchon ba mu ñëw Sénégal parce que li ñu miinoon ñun ñoo daan dem parce que ñun tubaab yi naw la wu ñëwoon sax Macky Sall mii fi nekk bañ na ko ba daan wax sax lu am solo du ko waxee ci réew mi France lay dem wax ko fa tey nag bu ñu demee ba ñoom ñuy déplacé wu di ñëw saa ça signifie que ni. dignité bi mu ngi bëgg a dem égal c'est très important il faut nu jàngat mbir yi bañ a dem ci bakkan yaa ngi dégg te hmm. àdduna bi nag ku bëgg a gouverner doo tëjal kenn sa bunt te américains yi dañuy wax ni anglais yi ñoo koy wax the word in your hand foofu la àdduna bi toll waa àdduna bi léegi benn village planétaire mën ngaa jëflante ñëpp du tere nga téye say conviction téye sa culture hmm? téye sa idéologie loolu day fekk rek nga bañ ñu bañ la cee waajal waaye bu dee complexe nga. Hmm. bu mel ni waa APR bu nit ki ñëwee di wax waxi góor jigéen nga amoo courage yu ni ko góor jigéen kenn du ko fi waxtaanee loolu kooku kooku kooku kooku méritewul sax kër leader dëgg mooy ku mu jàkkaar lool imposer la moom li mu gëm ak li mu xalaat. te leadership boobu gis nañ ko ci Bassirou Diomaye gis nañ ko ci président Ousmane Sonko lii mooy dëgg. Hmm. lii mooy dëkk kon Mélenchon ñu ngi koy wax soyez les bienvenus. ah waaw di xaar lan lay jur. <laughs> di xaar lu muy jur. beneen kuréel également yaa ngi koy wax sànq ci déplacement wu Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma nga fa yaa ngi doon bàyyi xel ca Gambie. waaw aussi topp nga ko ñaari fan yi la cay.